ne ida raayta boo gisee mazharal mazharal jamaali feeñ waayu taar laa tatxabul bew waaye war dana ma gërëm mazharal jalaali feeñ waayu màggaay ak yàlla feeñ waayu màggaay ak mooy bu yàlla wane màggaayam ak dooleem na xar ñëw fitna ñëw na nga gërëm loolu waxul sax na nga muñ na ko gërëm la wax waaye bu neexee na nga sant waaye su ayu neexee nga sant yàlla bu dee nag ngay tawataka jàmbat kooku baaxut ki gën a bon nag mooy koo xam ni moom bu neexee du sant yàlla fàtte na ko bu naqaree <clears throat> ay njàmbati ki tawat waaye du gërëm kon su yàlla dogalee mbir yi neex ndem yàlla ko dogal te yàlla dogal lépp gërëmal waaye nga sant ko sant ko mooy lam bëgg ci xéwal googu ba tax mu jox la ko nga jëm koo xam soo paree nga jëfe nga jë nga defee ko noonu waaye xéwal rek nga fàtte yàlla topp sa bakkan lu la neex nga def jàpp na yow dootoo xamati jafe-jafe déedéet falaay amunu makrullah illa al qawmul xaasiruun ñu perte rek ñu wóolu pexem yàlla yàlla saa su nekk rek mën naa changer ndax wallaahu xaalibun ala amri dafa not mbitam mbiram lépp <clears throat> amul lenn loo xam ne dañ ne fii moom yàlla mënatul ci dara déedéet lu nekk rek yàlla not na ko not goo xam ne ak lu mu ko mën a may ak xewal gu mu ko mën a jox su ko neexee mu changé ko ndax dara tënkut ko moom kuy jëflanteeg buur boo xam ne faalewul la yow ci coobareem rek lay defee kooku war naa tiit waaye kuy jëflanteeg buur boo xam ne moo ëpp yërmande ñëpp war naa sant war naa am yaakaar it yàlla du yow yaa ko tax di def coobareem ci lay defee du yow la bëgg nga kontaan du la bëgg nga mer am na lu tax muy jëf loo xam ne nii yoonu jaami nekku ci la Cheikh Tidiane nee na ba yàlla bindee ruuxu dafa andi ruuxu ci <clears throat> eh, dafa ko feeñal ci jëmmu ruuxu commencé tawat ndax dund bu neex ba mu nekkoon ak bokkut teg dund ak jëmm ji lëndëm ji yàlla ne ko binduñ la ngay xewal waaye dañ laa bind li nuwira waxdaaniyatina fiika euh, pour ñu leeral suñu weet ci yow ñu feeñal suñu weetaay ci yow yàlla looloo ko tax a jóg waaye moom du yow nga xewlu wala nga am problème buur bu la nag nga xam ne fekk na ku mel ni balaam ibnu baamura di wëlli yàlla boo xam ne lu ñaan yàlla nangu ko mujj ko alak bari ko niruleeg xaj taamoon naa ay maqaam yu kawe ci yàlla fekkoon Barsisa doon góor yàlla gu mag mu alak ko ba mujjee nekk ab kéeféer bu weddi yàlla kooku jar naa ragal buur boobu jar naa ragal kon bu mbir mi neex ba nga ne baax na santal rek te di ñaan mu dimbali la ndax buur bu baax la boo xam ne <clears throat> yërmande benn xaaj bi rek téeméeri xaaj la benn xaaj bi rek la andi ci àdduna ci la la sa yaay yërëmee ci benn xaaj boobu amul lépp sax dara rek la ci moom nag yërmande googu yëpp ci moom la jóge kon moom moo ëpp yërmande ci jaamam yi ñim la yërëmee sax sa yaay yërëmee wul ko yaay xam ngeen ne du mbugal dama soo amee yaakaar boobu ci sa borom rek yàlla dina la yëram moo tax bu mettee jàppal ne yàlla daf laa bëgg rek moo tax mu teg la loolu am yoonum la bëgg a awale am num la bëgg musal comme ni mu nar ñëwee ci kanam waaye tegul la lii ndax fitnaal la rek déedéet ëpp na loolu am na xikmatu njariñ loo xam ne ni moo nekk ci mbir moom mën a tëg boo ko xamoon doo tawat da ngay jàppee sa bopp rek comme xale boo xam ne dafa gis xalu safara bëgg koo laal yaayam di ko aaye su boobaa moom mën naa yuuxu ndax bëgg naa jot ci xalu safara sax waaye yaayam ko aaye xam na ne xalu safara soosu arrangé wut ko kon soo bëggee dara amoo ko nga nekk ci naqar xañ waaye jëlaal boobu na nga gërëm xam ne yàlla lam la xañ looloo gën ci yow boo ci jotoon du baax bu la tegee lu métti nekkee jàppal na rek da nga mel ni ku feebar docteur di la pikir pikir ba métti na gaa waaye mooy li lay jëriñ bàyyi daan na wax ne ida kanat al aqdaaru min maliki l mulki siyaani andi ma yusuru ma yubki béytu boobu ku bayteem waaye xaalam la mu ne dogal su fekkee ci yàlla mi moom mindee fi la jógee lay kontaanloo ak lay jooyloo ñooy xem ci man su fiyankey jamaal ak jalaal muy taar ak naqar ñaari fas lañ ko jàppee fas wu weex ak wu xonq buñ xëyee buñ ci njëkk a gis war dem doxi seen soxla ndax ñoom la leen yitteel mooy am seen boroom te xéwal yi mën nga ci am yàlla waaye nattu yi man nga ci am yàlla xéwal yi noo ci amee yàlla mooy sant ko natt yi noo ci amee yàlla mooy muñ comme ñoom am yàlla rek moo leen intéressé seen jëmm ji intéressé leen suñ gisee xéwal danañ ci sant yàlla suñ gisee nattu daldi ci muñ pour mën a am tiyaaba ku muñ <coughs> kon soo gisee feeñ waay taar bul bew mooy feeñ boobu fokk yàlla bëgg nga bañ ko faa def loolu rek mooy bew ak li tax yàlla jox la ko nga bañ koo jëfee noonu nga jàpp na lii sa mbiru bopp la yow di ci def lu la neex di le gërëm loo wut yàlla loolu moo di bew waaye nag soo gisee feeñ waaye jëlaal nga gërëm mooy nga xam ne yàlla daf laa bëggal tiyaabaab aji muñ te tiyaabaab aji muñ ku ko am yàlla daf lay fay fay gu amul fu mu yem innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xeyri xisaab su ko defee soo jàppee mbiri noonu yow da ngay am dal Mm, xaali baay gi mën naa mujj nekk sa xaal mooy dogal yi daal bu dee ci yàlla la jógee lay kontaanloo ak lay jooyloo yëpp yem ci man ndax yàlla ëpp nañu ko yedd <laughs> loolu daan na wax ne soo jàppee ne yàlla mooy dogal lu mën a xew di la ci diw la jaaree du la jaaxal ndax yàlla kenn waru koo yedd te yàllaa ko def soo jàppee ne jaam bee ko def nag yow wàññeeku nga lool teewul nag. xam nga ne jaam defu dara <clears throat> waaye la yàlla wax na nga ko teg ci jàmm bi mu jaarale jëf jooju teg ko ci léegi ku njaaral dañ koy caw ku nekk rek la sharia santaane ci moom dañ ko def ndax yàllaa ko santaane waaye lam la teg ci ay naqaar moom loolu bul jàpp ne jaam beelu ko teg nga jàpp ne sa bàkkaar yu bari moo tax yàlla jaarale natt yooyu mu ñëw ci yow ngir raxas sa bàkkaar yooyu ngir bëgg la aljana waaye bëgg la jàmm su baa loolu xewal la moo ko am ko feebar rek ñu di ko opeere wala ñuy pikir yaram boobu wala ñu di ko xot ci benn rek la dana métti waaye daf koy jëriñ daf koy indil wér <coughs> loolu gër ngërmaa ni nga ci war def soo gis kuy docteur di faj mu ne man docteur bi laa gën a bañ parce que daf may faj déedéet faj gi lu métti métti dana xam ne loolu la laaj waaye dafay dafay gërëm docteur boobu su paree sant ko ndax taxaw gi mu ko taxaw rawatina nag yàlla mi nga xam ne moom feebar yi mu lay fajal moom de joxoo ko ci dara te ci benn intérêt waaye lépp xewal la goo xam ni eh, yow rek lay jëriñ kooku lu def ci yow lu metti métti métti war ngaa gërëm moo tax fekk lu daal yi lépp muy lu neex ak lu naqari amru ilaahi mbiru yàlla la yusda boo xam ne danañ ko yor xat jalla màgg na moom yàlla an yoxta bañ koy def fii ma asda ci lam joor lam yoor dégg lu neex ak lu naqari yëpp mbiru yàlla la yàlla koy yoor ci dénga nga <clears throat> jaam bu ko neex lu neex ak lu naqat yépp mbiru yàlla la yàlla koy yoor ci jaam bu ko neex waaye yàlla màgg na ëpp na muy yoor mbiram ci jaam jaam bi di yedd <clears throat> xam nga jaam xamut yàlla xam te yàlla du def lu ñaaw du tooñ kon maanaam mooy ne lu mu def loolay lu rafet lu tax mu def bu pare yow mi xamul nga yedd ki xam ci lim def ki xam ku xamut warul koo yedd mbir yi mbiru yàlla la muy lu neex ak lu naqari moo koy joxe moom yàlla ci nu mu ko neexee di ko séddale nu mu ko neexee ëpp na nag ñu di koy yedd ci lim def yow mi xamul ni mbir yi demee boo yedd ki xam ni mbir yi demee war nañ laa xoolaat waaye boo doon yedd sax nga yedd nit ci loo moom waaye loo xam ne ni moom mbiru yàlla yow soo nekku ci bindoo moomoo amoo dara nga nekk lu tax nga defee nii loolu de moo fekk ko am alalam di soppandiku nga nekk lu tax ngay soppandiku sa alal benn la yow nga mën a tër ganaar rey te bindoo ganaar moomoo ko yàllaa ko bind moo ko moom yow nga mën koo tër rey ne li nga def njub la te bu yàlla jëlee sa bakkanu doom nga am naqar te yàlla bind doom ji bind la moom leen loolu mooy yebaati ak ñàkk teggin kon di yedd yàlla ci lim def kooku ñàkk ñàkk teggin la <coughs> laa tata allaman bul méttallu idaa raayta boo gisee idaayatal xalqi lorog mbindeef gi ndax li daa lii tax xuliqtaa ñu bind la soo gisee mbindeef yi di la lor bum la metti ndax yow dañ laa bind ngir feeñal taarab yàlla ak màggaayam ci yow kon lor yi foo mu feeñ ci yow ndax ci lu tax ñu bind la la bokk foofu bu yaatuñ fa lor yi ci lu tax yàlla bind la ci la bokk kon soo ko gisee bum la naqari mu ne te lor yi sax am na njariñ ku ci nekk ajra dawal na al aza lor minhum ci ñoom li allah tarkanaa ngir bul jeng ilayhim jëm ci doomu aadama yi li fi nekk farkanaa jengal li ilaahi jëm ci yàlla te lor yi mën naa tax nga jubóog sa borom ndax mën naa tax xol bi nga xam ne yàlla rek mooy borom nga génnee ci lépp lu dul yàlla def ci yàlla rek te looloo tax yàlla bind la bi yàlla daf ko bind pour mu xam ko te lor yi lay mindee fi lor yoon la wu lay jëmale ci sa borom nga nekk jaamam nekk soppeem nekk xaritam kon kay lor woowu am na njëriñ yàlla dafa wax ci alquran fa firru ilallah daw leen jëm ci yàlla waxu daw leen jëm ci aljana kon bu leen kir kirim ngir aljana waaye daw leen jëm ci yàlla daw nag damay wax ne ñaaru koy waral <clears throat> gis loo bëgg wala gis loo ragal doomu aadama yi ñu ci bari xeloo guñ eh, ci la nekk ca péeb yàlla ba kon nuñ ko bëgg ba mu leen jaral daw daw gi nag ci ay jaamu yàlla la daw jëm ci yàlla mooy jaamu yàlla yu bari ngir bëgg koo jege hmm. lañ xam mooy àdduna moo tax ñenn ñi àdduna leen di tax di daw maanaam seeni yëngatu seeni i coono seen i yitte yëpp ci àdduna la jëm ñeneen ñi aljanaa leen tax di yëngatu lu ñuy def aljanaa tax lu ñuy moytu ragal sawara tax waaye am na ñoo xam ni nag yàlla gi leen yàlla dawloo jëme ci moom ñoom yàlla jooju moo leen tax di def dëppoog hadis ba ne sama jaam bi jegeñ loo wut ma li gën li ma farataal ci moom kon farata yi pour jege yàlla moom moo tax waaye du pour wut aljana su ko defee jaam bi bu xamul la nekk fa yàlla nag te bëgg na yàlla bëgg na ko yàlla dafay def mbindeef yi ñu di ko lor di ko xas di ko ŋàññi ba mu dem ba nga xam ne ni benn mbindéef du am cër ci xolom ndax kum yaakaar rek daf koy xeex daf koy lor ña ko waroon a dimbale ñoo koy njëkk lor bu demee ba deseetul kenn ku dul yàlla yàlla ne ko marhaban bismillah aywa ndax pay bi noonu lay doxe moo tax sëriñ bi nga topp sax noonu nga war a jëflante moom yàlla dafa fasante kóllëre nit yàlla yi ne nañ seen bakkan buñ bëggee bokk ci kuréelu yàlla gi dëgëral seen bakkan ba mën a yenu nattu yi mën a yenu fitna yi mën a yenu weddi gi leen nit ñi di weddi ak xas yañ leen di xas moo xam xas gi dafa jugee ci ñu leen xam wala ñu leen xamut dafa jógee ci ñu xam ñoom wala ñoo xam ne ñoom xamuñ leen net balaa nekk sang danañ ko ŋàññi ŋàñ yoo xam ne dana jógee ci ñum xam ak ñum xamut ñu ko xam ak ñu ko xamut mu muñ yàlla door ko def njiit boole ko ci wàllu yàlla yim tànn kon mbir mi yombut moo tax mu ne wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru bañ muñee xas yooyu ak natt yooyu jublu yàlla rek def ko seen xol amatul kenn kuñ weedu ndax kuñ weedu mu lor leen kuñ yaakaar ci ñoom ndimbal rek mujj bank loxoom di leen lor loolu yéege na leen ñu génnee seen xol ci mbindeef yépp def ci yàlla rek jublu ko xam ne moom rek moo fi sës ba yàlla tànn leen def leen i njiit <clears throat> ndax ku yàlla bëgg tànn ak kum mën a doon faw ñu lor ko neex na ko walla neexut ko faw rek mbindee fi lor ko xataa mbindee fi bu leen neexee bu leen neexut danañ ko lor ndax loolu yàllaa ko dogal ndax jaam bi mën a daw jublu boromam li waral nag yàlla nattoo nit ñi ñuy ŋàññi wali yàlla yi nekk seen dar mooy nit yàlla yooyu dañuy jug pour bokk ci ñooñ pee yàlla bi bëgg bokk ci soppee yàlla yi ak wali yàlla yi te yàlla dafa xaraamal aaye peem boobu képp kuy wut daraja wala maqaama wala tolluwaay ci nit ñi yàlla xañ na ko peem boobu du ci dugg ñu yàlla bëgg a tànn nag dem ay nit lañ rek danañ bëgg am ak jàmm nit ñi danañ bëgg nit ñi fonk leen loolu yëpp danañ ko bëgg su ko defee nag loolu nekk seen xol mooy kiiraay gi leen xiir ba mënu ñoo dugg ci péeb yàlla yàlla bëgg dindi kiiraay googu pour ñu mën a dugg ci pee bi mu xiir mbindeef yi ci kawam ñu di ko sosal di ko naral di xotti derem di wax ci moom lu ñaaw lu ne bam dem toll foo xam ne ni amatut kenn ku wéedu ci mbindeef yi ku yàlla su demee ba nga xam ne ni amatut kenn ndax kum jublu rek yaa ko gën a lor boobaa dana sukkandiku ci yàlla ndax mënutul ñàkk buy sàkku maqaama ci yàlla la koy sàkku ndax amut ko ci mbindeef yi ñëpp beccingal na ko beccingal nañ ko soobaa ci la ko yàlla jox maqaama yim ko war a jox daal di ko yéege ci dara darajaay jege yàlla daal di ko yéege ci cër bi nga xam ne nii moom la yàlla dogaloon ñeel jàmm boobu waaye fekk jàmm baa ngi sàkku makaama ci mbindee rek kooku xéer nañ ko yàlla <clears throat> ndax jaam ni muy gën a dolleekoo ci melo yu bon yi rek kiiraayam diggante dolleeku mën nañoo dem ba xiir ko yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki junney kiiraay ndax melokaan yu bon yooyu aj gi nga aj sa xol nag ci leneen lu dul yàlla ci suufe yi la bokk dafay tax loolu yàlla xiir la boppam boo xoolee xale bi juddu bees yonent ne ne mu ngi ci fitratul islam islam pire xale bi juddu defut dara ponk lislaam defut ci dara te teewul ñu ne moo nekk ci lislaam pire ndax xale boobu xamul leneen lu muy boromam soxlawul dara lu mooy boromam waaye bu demee ba commencé ak xolom ci yaayam ak baayam ak mbindeefi rek ci la kiiraay gi ñëw mu fàtte yàlla ñu teg ko ay jaamu yàlla yu jafe yu diis yu raxas xol boobu pour mu delluwaat ci cosaanam yow it noonu la yàlla tegee ay nattu yu diis gannaaw ba nga xamee ne jaamu yàlla yi ba léegi changé wul la ñu teg la ay nattu mooy fi yooyu nga xam ne ñoo doon kiiraay yi ñoom ñoo lay mujj xas ñoo lay mujj di la xeex ñoo lay beccingal su ko defee ci ngay jublu yàlla rek soo ko jubloo moom rek moom it mu jublu la wax na ne ku ko jegeñ lu du toll ni euh, sebre mu jegeñ lu du toll ni loxo lépp Eh, lu toll ni xasabu boo ko jegeñ loolu toll ni xasabu mu jegeñ loolu toll ni loxoom lépp booy dox jëm ci moom mu daw jëm ci yow kon bu sa xol setee nga xam ne yàlla rek nga jublu foo yàlla jublu la te su jubloo nag ci ngay door am sa càkkutéef alin xawaas daan na yàlla du tànn jaam bu mukk lu mooy ne na toon a jaam boobu seytaane yi ci nit ñi ak jinne yi dajaloo kompaloo ñoom ñëpp dal ci kawam du ay nit kese waaye nit ki jinne moo tax mbir mu yombut di ko sànni ay caaxaan ak ay sos su demee ba daw mbindeef fi amatul kenn ku muy wéedu kudul yàlla jamono jooju ci lu ko yàlla dooru tànn lii nag kaa yi na man kaana ku bëgg a dugg ci péeb yàlla bi rek da nga dund lii a doon abul hasan ashadili daan na wax ne yàlla ba xamee lañ nar a wax ci ay toom ak ay nitam yu sell ci caaxaane ki nar ci la jël ay nit ñi nga xam ni seen cër moo di texaat yi yàlla incha musal mu dogal ci nit ñoo ñu ne yàlla am na jabar hasbunallah yàlla set na ci lool ñu ne yàlla am na doom yàlla set na ci lool ne yàlla dafa nay dañoo gëx loxoom yàlla set na ci lool ak yu mel noonu maanaam. ba mu xamee ne danañ tooñ <clears throat> ay waliyoom ak ay yonentoom dañ leen sosal daf ko njëkkee ci boppam dogal ay nit ñu di ko ŋàññi moom yàlla ci boppam ngir xot xolu wali bu demee ba xat ndax dégg wax giñ ko wax te wax ja ñaaw lool su xolum xatee rek péeb yàlla ba nga koy xoo naan ko xanaa doo rey sa borom sa borom bi nga xam ne defal nañ ko jabar ak doom askane ko loo xam ne yellut ci màggaayam te ñooñu ko def yàlla ngi leen di jox ngëneel kat te seen ruuxu mu ngi si loxo yàlla bu ko neexoon mu rey leen léegi su boobaa boobu du mën a def lu may jéem a roy boromam eh, eh, ibnu ataillah daan na wax ne su naa yàlla ci yonentoom yi ak ay nitam yum tànn yoon maanaam na yàlla di doxalee ci ñooñu mooy ay soppeem mooy dafay xiir ni ñi ñu di leen ñu di ko lor ci commencement wu mbiram nit yàlla bu mën a commencé mbir rek ca commencement mbir nit ñi duñ la jàppale waaye dañ lay seetaan duñ jëm ci seetaan la waaye dañ lay lor loolu Ibnu Ataa Ilaay wax waaye nee na ñoom ñooy mujjee ndam buñ muñee su fekkee muñ na ñooy mujjee ndam ndax yàlla dafa wàcc alquran fa alladina haajaru ñi nga xam ne gàddaay nañ ñu génnee leen seen kër lor leen ci sama yoon kon kuy commencé lu baax rek yu mel nii danga ko dund lu mel ni gàddaay lu mel ni ñu génn la lu mel ni ñu di la xasak wax lu ñaaw lu ne te yàlla xam na ne set nga ci loolu lépp nit yàlla yi su fekkee mosuñ weextanu lor yi leen i weddikat yi di lor duñ mën a duñ mën a jot mukk dëgg-dëgg wéedu ci yàlla ak daw jëm ci yàlla ndax seen xol ñooñu danañ ci am cër noon dafay waral wëlli yàlla bi mer dëndam xat te bu sa dënn xatee nga mer mën na laa indil xéwal ak nga nëbbu sa mer te nëbbu mer ci maqaama yi yéege jaam bi ci boromam ci la bokk su fekkee nëbbu nga sa mer rek danga nga am mbëggeelu yàlla ndax ñi nëbbu seen mer di rafetal ñooñu yàlla daf leen fay loolu war a yàlla di la teg loo xam ni dafay tax nga mer mën a muñ jëlee ci muñ jëlee ci tàggatu e waaye it génne si sa xol mboolem doomu aadama yi doo desee ci kenn lu may sa borom soo ko defee yàlla gërëm la boole la si ay soppeem ndax kook la soxla moom koo xam ne nii yàlla rek lu bëgg imaamu Junayd di na wax ne jazallahu anna ixwaanana xayran radduna bi jafaihim ilallahi taala yàlla na yàlla fayal ñu suñ mbokk yi yiw maanaam suñuy noon yi yàlla na yàlla fay suñuy noon ndax beccingal gi ñi beccingal wan ñu gannaaw looloo ñu delloo ci yàlla loolu la imaam Junayd di wax te loolu nag noonu la yàlla di doxalee ci kaw suuf si mboolem ku soobu ci yoonu maarifa ak kashfu te walan tajida li sunnatillahi tabdilan sunna yàlla googu du ko changé bu mukk amut kenn kuy soobu ci yàlla lu ma yàlla nattoo na la nit ñi ndax nit ku nekk yàlla daf koy nattu kem diineem yonentu bu nekk am na noon waaye wulli yàlla bu nekk yàlla dana ko fàggul noon Adama yàlla Iblis la ko boole woon mu di ko lor Daawuda yàlla boole koog Jaaruta muy xeex ak moom Ibrahima yàlla boole koog Namruut mu di ko lor Moussa yàlla boole koog Firawna muy noonam Isa yàlla boole koog Buxtu Nasar ak yahudi ak Dijjaal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla boole koog Abu Jahlin kon nit yàlla bu nekk rek am na ku ko yàlla booleeg Abu Ali al-Xawaas daan na wax ne su fekkoon ne xoote bu mat jëmee ci yàlla mooy nit ñi ñëpp àndoo bëgg la dëgg la. kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy gën a xëy ci loolu ak yonent yu ko jiitoon waaye ñooñu xamul ñoon loolu lañ xam mooy dafa am ñu leen dëggal yàlla jubal leen am ñeneen ñu leen weddi yàlla texaadi leen toroxal leen waaye loolu lépp ci mbaandoo moom borom bi subhanahu wa taala kon nit yàlla nit ñi ñaari xaaj rek lañ mën a doon ci ñoom ci moom am ñu ko sopp aw ci yoonam yàlla jubal leen ci loolu am ñu ko woon gannaaw jëlee ci ak texaadi rek loolu rek moo mën a am waaye <clears throat> ñëpp bokkula bëgg loolu mënul am fenn ñëpp bokk la loolu mënul am fenn <clears throat> nga wala yàlla yit amoon nañ noon ci jamono saxaaba yi ba suñu jamono tey jii noon yi leen di lor di wax ci ñoom lu ñaaw loolu lépp mooy li yàlla wax ne wa jaalna baadakum li baadin fitnatan tasbiroon yàlla def ne def nañ ñenn ñi ñuy fitna ñexel ñenn ñi ngir ba xam da ngeen mën a muñum déet yàlla moo jël ñenn ñi def leen ñuy fitna ñexel ñenn ñi pour lan pour nit yàlla yi mën a muñ mën a jublu seen borom dégg yàlla bëgg na leen a may tiyaabaab muñ te mun leen koo may lu mooy ñoom ñu muñ kon il faut ñu lor leen buñ leen loree ñu muñ su ko defee ni door a mën a am tiyaabaab ku muñ dégg eh, <clears throat> te nattu sax dafa bokk ci teraanga gi yàlla teralee jaam yum tànn moo tax natt yu teqalikoon ci xeet yu jiitu yëpp yàlla daf ko dajale ci xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Zubayr ku bari woon lu muy toroxlu la ci julli waaye teew dañ naan wax ne ngistalkat la njaalokat la bi billahi te loolu set na ci ana lu gën a ñaaw loolu fekk nañ ko muy julli ñu sotti ndox mu tàng ci boppam fekk mu ngi sujjoot waaye yëgut ko sax ba mu nag ci la bopp bi di commencé métti toog na jamono ju metti jamono ju yàgg bopp bi di metti ndax jafe-jafe boobu waaye bañ ko sottee ci julli gi yëgut ko sax moom ndax jeex gim jeex ci boromam kooku kooku bëgg na yàlla bëgg yàlla koo xam ni egg na ci maxaama bi yonentu wax da nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis kon moom bu teeweeg yàlla hmm, kooku bu teeweeg yàlla dana fàtte àdduna nag li ci biiram moo tax ndox mu tàng moom yëgul ko ibnu abbas yàlla na toon na ko naafi bun azraq mooy wax ne ibnu abbas dafay firi alquran ci dudul xam-xam loolu la daan wax Saad bun Abi Waqaas yàlla na toon ko ñenn ci waa Kuufa ñu réer ñi ñu di ko lor naan Saad mënu sax julli loolu daan ko ko wax Abu Yazid al-Bastami dàq ko dëkkam juróom-ñaari yoon ci ndigalu Xuseyn bun Isa ngir wax ki mu wax xam-xam boo xam ne ñoom xamuñ ko ci maqaama yonent yeeg wali yi balaa muy dellu Bastami googu Xuseynu jigéen na fa gannaaw bu Xuseyn jógee ba mu dellu ci la ko nit ñi door miin door koo màggal door koo jox cëram waaye génne ko la njëkkee Zunnun al Misri <clears throat> génne nañ ko Misra yóbbu ko Bagdaad xew ko gëx ko waa Misra ànd ak moom di seede ne zindiq la maanaam naafeq la génne nañ Muhammad bun Fadl al Balxi ci dëkk boobu di Balx ngir ne moom aaya alquran yi ak xadis yi daf koy taawil ci da koy firi ci zaahiram du ko taawil du jéem a xam li ci yàlla na mu nag waa balq daal di ko génne bañ ko génnee ci leen wax na yàlla yàlla génnee seen xol xam yàlla gannaaw loolu suufiyanke génnewut balq te balq dëkk la boo xam ne nii bokkoon na ci dëkk yi ëppoon suufiyanke waaye ba mu leen ñaanalee amatuñ ko imaamu Junayd seede nañ ne xeebeer la ndax xam-xam bi nga xam ne yàlla may na ko te gaaye muñ ko bu daan wax ci xam yàlla ci kaw la ko doon wax waaye dem na ba mujj bu koy wax ci biir néegam rek la koy waxee abu jamrata ibnu abi jamra wali la boo xam ne nii ci gaañi la bokk mos nañ ko wutal jotaay ngir critique ko ngir wax gi mu wax ne damay dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa eh, xatal ko ba mujj mënatul génn këram buy julli ji mbooloo rek moo koy tax a génn ba ni muy génne àdduna ñëpp ne xeweer la tuumaal ko ne dafay daganal sàngara ak seeg góor dafay sol dégg nga seen hmm, tëru chrétien yooyu xeew ko jëlee ko Shaam yóbbu ko Misra loolu lépp def nañ ko abu Madyam Madyan nee nañ zindiq la génne nañ ko bi jaay yóbbu ko Tilimsaan fa la dee bañ denc ko fa Hakim Tirmizi bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ba mu taarifee téeréem boobu di alalu sharia ak kitaabu xatmil awliya inkaar nañ ko ci ñaari téere yooyu ne dafa gënale wàllu yi ci kaw yonent yi xiisal jëme ci moom mu dajale ñaari téere yépp sànni ko ci géej ga su ko defee jën ji won na ko ay at daldi ko yebli nit ñi jariñu ci Saad bun Abdullahi sànni nañ ko ay ñaawteef yu nekk génne ko Misra ba ni mu génne àddina abu said alxaraaz sànni nañ koy mbir yu ñaaw ak i xeeveer ngir rek ay wax yu ñu fekk ci téeréem te dégguñ ko sànni nañ yusufa bun xuseyn ay bakkaar yu bon ba ni mu dee waaye moom faaliwu leen ndax dëgër gi ci yàlla génn nañ abul xasan al buusan ji yóbbu ko ne ba fa la génne àddina saxnuun moom it sànni nañ koy bakkaar yu bon ay mbir yu ñaaw boole kook caga caga bi wax ñëpp di dégg ne sax nun dafay dem ak ay taalibeem Chibli wax nañ ne xeeveer la ay yoon dem na ba Chibli ay soppeem dañ ko doon jël eh, di ko yóbbu ca fa ñuy faje dof yi ngir ne dof la ngir nit ñi may ko jàmm soppi noonu lañ doon def ndax sonn gi mu sonnoon kenn ci sëriñi Baxdaad yi wax na ne yàlla su amutoon jahannam koron dana bind jahannam ngir gaa ñi nga xam ne ñu ngi lor chibli su yàlla amutoon jahannam dana ko bind ngir noon yi nga xam ne ñu ngi lor chibli ndax lor yu metti yiñ ko lor xemuñ ci éverloo ko rek waaye lu ne eh, wax nañ ko ko moom moom moom sibli moomu waa maghrib génnoo nañu abul bakr al qaabisi génnee ko ci maghrib xeew ko yóbbu ko misra jël ko fees ko te fekk mu ngi dund bañ koy fees muy jàngal xuraan ànd ak setantal ak toroxlu noonu lañ ko feesee ba mu dee eh, dafa nekkoon nit ku baax koo xam ne nit ñi dañoo fitna woon ci moom maanaam bëggoon nañ ko lool ñu nettali mbiram buur bi su ko defee ci la buur bi ne rey leen ko ngeen fees ko ñu koy fees muy dund di jàngal xuraan naka noonu it nasaf yi fees nañ ko ci xalab muy xool ñu koy fees di muuñ jamono bi ñu koy fees defal na juróomi defar na ci diggante boobu juróomi téeméeri baytu yoo xam ne ci wàllu wéetal yàlla lay wax muy baytu yu rafet jamono boobu ñu ngi koy fees ndax lan ndax dañoo wax ak moom ci xam-xam ba sonn mu di leen xee bañ demee ba xam ne mënuñ koo xee ci wàllu xam-xam ci lañ ko tuumaal ay wax yu ñaaw dem ba di ko fees yaramam lañ ko tuumaal mooy <clears throat> dañoo bind suratu ixlaas ci ab kayit bañ bindee suratu ixlaas ci ab kayit ñu ñaw ko ci ab dàll jox ko ko hadiyu moom na safi ci yoon wu sori dañ ko ko joxee mu daal ko sol te xamut ñu wax kilifa ga ne ko na safi de bind na ixlaas awee ko dàllam kilifa gi daldi di woote ñu génne kayit ba ah mu jëbbulu rek défendrewul boppam benn yoon xam ne faw ñu rey ko ci noonu lañ ko reyee fees ko defal na juróomi téeméeri bét yoo xam ne lépp ci wéetal yàlla abul qasim al bahrabazi génne nañ ko ca basra ak abu abdullah saaxibu abu xabsin al xaddaad ñooñu génne nañ leen <clears throat> abul xasan al basri wane nañ ne xeebeer la wax nañ ci ibnu chamoun ay wax yu ñaaw ba ni muy génn sax kenn teewewut néewam wax nañ ci imam abul ay wax yu ñaaw ba ni muy génn waaye nag teewul rek muy too soxloo xam-xam ak xadis ak xoor ak naafe guddi ak dëdd àddina dem na ba lalay basant ci tëdd abu bakar asamtaani nee na abu dinaar da doon wàccee garaatu imaamu junayd ak saxnuun ak ibnu ata ilaay ak sëriñoy waa iraq su déggee ku leen tudd dafay mer daal di changé abul xasan achadili génne nañ ko jëlee ku maghrib yóbbu ku misra ne ne la ne dafa murtad dafay daganal yu xaraam rey nañ imam abul qasim ak ibnu xiyaan ak eh, ñeneen ci sëriñ ci dañu di weddi ibnu arabi alxaatimi ak ibnu farid izuddin bun abdusalaam fas nañ jotaay ak moom ci baat bu mu wax ci aqida pour critique ko naka noonu taqiyuddin bun lays al aaz tuumaal nañ ko ba ca buur boobu buur yi bëgg koo rey yàlla dabaatal ko amut benn nitu yàlla ci jamono lu mooy ne yàlla nattoo na ko ay ay nit wata imaam Suyuti ne e, bokk na ci xéwal yi ma yàlla defal mooy defal na ma noon bu may lor di xotti sama der pour ma mën a roy yonent ci yéeg wali yàlla yi amut benn mag ci jamono lu ma yàlla wutal na ko wutal na ko ak noon suñu suufee ñi ndax ñu suufee ñi dañ leen di nattoo ñu tedd ñi dañ leen di nattoo ñu suufe ñi abul xasan radiallahu na wax ne ba nga xamee ne borom bi subhanahu wa taala xam na liñ nar a wax ci kuréel gu e, gu màgg gi ci moom boppam la njëkkee moom yàlla dogal ci aw nit ñoo xam ne texe dinañ ñu askane yàlla jabar ki doom askane ku ñàkk ne loxoom daf ko dafa dañ koo gëx ngir bu xol wali bi xatee ngir wax giñ wax ci moom ne xeefeer la wala naafeq la wala njabarkat la wala dafa dof wala saar wax yooyu yàlla xoo ko ne ko lii ñu wax ci yow surutoon ak sama ngëneel mooy nekk sa melo waaye maa la sutaral lu melo noonu ganaa gisoo sa mbokk yi ci doomu aadama yi nuñ tabbee ci sama xaq askanee ma loo xam ne yellul ci man su fekkee loolu hubbi wut xolu dën waliyu bi yàlla xoo ko ne ko xanaa dooroy ci man wax nañ ci man loo xam ne xellut ci sama xaq waaye naka noonu wax nañ ci yonent yàlla muhammad sallallahu ci mbokkam yi yonent loo xam ne xellu seen martaba mooy ñu askane leen ak ak njabar ak dof wane na ñoom wutuñ lu mooy ak njiit ak bëgg càng ak àddina wax nañ ne loolu moo leen tax di woote hatta Cheikh Tidiane radiyallahu anhu na too ko ibnu maaya ba mu taalif téere boo xam ne lépp ay nar la di ci xéewéerloo Cheikh Tidiane ak yey saxabaam di leen réerloo xataa Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wa ardaahu saa su nekk ba léegi ñu ngi dégg ay nit di wax ci xaqam loo xam ne dara yóbbeewu leen ko lu mooy ak keñaan sos yoo xam ne sama teggin may ma di ci jaar kon lor yooyu yàlla di teg wali dara taxul lu may buñ weedu ci mbindeef yi waaye ñu weedu ci yàlla mi nga xam ne moom moo leen bind moo ko waral te mboolem ku jaar ci yoon woowu rek jaar nga ci lor yooyu in uridu ila islaaha mastatantu ma tawfiqi illa billah li tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa